waaw bisimilah kon euh, ñu ngi nuyu waat ñëpp di santaat ñëpp gannaaw ba ñu santee yàlla suñu borom ñu ñu may ndaje bi ñu tàmm ko ci bisimilah rahmaani rahiim àggale ko ci alhamdulilah rabbil alamin muy ndaje moo xamante ni bi ñu ngi ko jëmee ci xew-xew yu mag ci réewum Sénégal muy le gàmmu annuel de Tivaouane nga xam ne nag euh, dañ ko def ci ndigal. ni ma ko waxee woon sànq loo xam ne am nañ ko ci xalif général di Tijaan sëñ Babacar Sy Mansour ñu ko nuyu di ko ñaaral mu yàgg fi lool te wér ndigal loo xam ne jox nañu ko jaarale ko ci sëñ Moustapha mu ànd koog sëñ Abib mi ak sëñ euh, Babacar Sy sëñ Babacar Cissé mu soxna mu xayri ñu dikkee ñu ko euh, ngir lépp luñ ci war a def rek ci gàmmu gi ba mel na mu war a mel ñu taxaw ci loolu tamit ñu ànd ci am ci ndigal ak eh, ay instruction suñu ay kilifa ci wàllu nguur gi loolu moo waral eh, bisu tay bi nii nga xamante ne kon eh, gàmmu gi ren dafay am cachet bu spécial li ko waral mooy yaakaar naa ne depuis deux mille dix-neuf la ñu gëj a amal fii édition gàmmu li ko waral xam ngeen ko li fi xewoon ci wàllu wér-gu-yaram ci corona bi kon nag loolu bu ñu demee ba koy defaat xamante ne bii taalibe yi namm nañu gàmm namm nañu ziar si dëkk bi kon li ngi séentu mbooloo mu takk moo xamante ne bi nañu daje fii ci euh, Tiwaawan te gàmm ko ne xamante ne bii dafa am ay temps fort ndax buñ ne dañu dañuy tàmbali burdu bi loolu temps fort bu mag la ci ci gàmm buñ ne également dañuy tëj burdu bi tamit temps fort la Euh, gàmm gi ci boppam door a ñëw loolu yëpp nag kon euh, mu feeñ ci li ñu waajale bis bi ak li nga xam ne jël nañ ko ci ay matukaay ci fànn yëpp ndax tey jii soo jëlee ci wàllu santé bàyyiwuñu benn aspect lu tolloog euh, lu tolloog 60 postes médicaux avancés war nañ ko amal fii ci dëkk bii di Tivaouane ak 5 postes médicaux fixes lu bokkut ak infirmerie de la Xadara 40 ambulances lu mu néew néew war nañ ko mobiliser pour lii di euh, euh, gàmmu gi ah, ak it dotation wu cinquante millions en médicament yoo xamante ne bii lépp ci gàmmu gi euh, ci biir loolu itam hôpital bii di Mame Abdou Aziz Sy Dabakh moom tamit dina nekk en niveau d'alerte ngir lépp loo xam ne xew na ci gàmmu bi mu mën ci am taxawaay bu mat sëkk ci biir loolu prévoir nañ ko ñaari postes médicaux avancé ci buntu hôpital bi ngir ñi nga xam ne dañ fay ñëw te xëy na jarul ñuy àgg ci biir hôpital bi ñu mën leen jël foofu en charge euh, waaye tamit lépp loo xam ne bi jël nañ ko ci matukaay pour que hôpital bi gën gën a nekk à niveau loolu aussi bàyyi wuñ ci dara bokk na ci euh, lii di service euh, orthopédiste nga xamante ne bii dañ ko defaraat jafe-jafe ba fa am dañ wax ko mooy fexe ba hôpital bi am benn benn. Euh, table orthopédique nga xam ne li muy jar xaw na bari waaye loolu bokk na ci li nga xamante ne bii sàkku nañ ko pour ñu am ko ngir ñu mën a def seen liggéey bu bu bu baax a baax naka noonu itam euh, hôpital euh, centre de santé bi nga xamante ni mooy bi nekk ci Tivaouane moom tamit dañ koy gën a laat gën koo yokkaat ak personnel personnel ba moom tamit taxawaay bi mu war a taxaw si mu mën koo taxaw bu baax lu bokkute loolu aussi COSCAS naka jekk am na hôpital boo xamante ne dañ koy taxawal lu toll trois 300 agents dinañ koy liggéey wut nañ barab boo xam ne bii fa lañ ko war a def implanté ko fa ba moom tamit mu mën a jàppale bu baax ci wàllu euh, wér-gu-yaram ci biir loolu itam suñ jëlee euh, wàllu euh, hygiène pour tënk rek ñoom tamit jël nañ ay matukaay yoo xamante ne bii ci wàllu cet ak setal dinañ ko dinañ ko matale bu baax bokk na ca loola lépp luy euh, traitement muy saupoudrage wala traitement intra domiciliaire la ca war lépp dinañ ko def la ciy war ci wàllu produit euh, dinañ ko def expression de besoin muy ci euh, service national d'hygiène waaye tamit jàppalante ak la mairie de wan ba liñ soxla lépp ci produit également ñu man koo ñu man koo am loolu également bokk na ci li nga xamante ne bii jël nañ ko lu lépp lu ay ay renforcement nag ay élément loolu dinañ ko def ak euh, commune ak euh, la commune ba li ñu soxla lépp ci personnel ñu mën ko am moom ñoo ñu teg fii euh, wane nañ seen yéene wane nañ seen Pastef également pour que lépp ñu ci war a mën a def ko jàpp ci gàmmu bi ñu def ko te loolu yaakaar naa dalal na suñu xel bu baax a baax di yemale foofu sama sama kàddu di santaat bu baax a baax sëñ sëñ sëñ Moustapha di ko gërëm ak sëñ sëñ ak également seen sëñ Babacar Cissé ñoom ñëpp ñu xam ne bi tey jii ñoom la xalif bi yebal ñu liggéey ko liggéey bu am solo waaye itam di gërëm bu baax waa Koskas eh, jiital ci seen président eh, maam Ousmane si eh, Samba donc moom ak ñum àndal ñëpp ci Koskas di rafetlu seen taxawaay di ñaan yàlla rek yàlla ñu yàlla may lépp luñ fi wax mu am may ñu kattan fekkee ak tal buñ ko mën a defee ba itam lépp lu ñu jële ci gàmmu ci ay yiw ak ay baax lool tam yàlla man ñu ñu ko may lool la ñu doon wax di santaat bu baax a baax di di gërëm eh, di santaat mbooleem chef de service yi nga xam ne bii eh, teew nañ fi di ñaan yàlla yàlla may gàmmu jàmm gàmmu bu mucc ay jërë ngeen jëf allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi alfatixi lima uhliqa walxaatimi lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم mbokk yi ñuy déglu mbokki Sénégal membre CDD bi nga xamante ni ñoo doon daje Serigne Habib Serigne Babacar Sy Cissé comité d'organisation bu COSCAS ñu ngi am mbégte di ko feeñal di ko fësal jaarale ko ci kii di monsieur Mamadou Gueye préfet département bu Tivaouane kàddu itam jaar ci moom jàll ci chef de service yi nga xamante ni ñoo ànd ak moom dans le comité départemental ànd ak sunu maire di maireu dëkk bi premier magistrat de la ville de Tivaouane El dem ba Diop di yëkkati rekk kàddu gannaaw bi nu dégloo waxtaan wàqante joxe ay solution jëm ci wàccaayu li nuy séentu ca kanam mu war a ñëw mu di mawlidu nabi sallallahu alayhi wa sallam bés boo xamante ni miine nañ ko ci réew mi senegal àdduna bi Seydil Hadj di ko woote daan wax ni bu sañoon dëggam gu muy waxtaane ci benn guddi tànn ci benn semaine tànn ci benn weer tànn ci benn at di ko ca waxtaane bu sañoon ku mu am nga ñëw fekke ko ren xalifa bi Cheikh Seydi Aboubacar si Mouhamadul Mansour dogal wax sëriñ Habib ñu wax la ni bëgg na mawlit bi nu jëm bu nu yàlla mayee fekkeek tal ñu dundal ko na ko boroom bëgge woon daan ko ni dundale ñu wax la ko nga jokkoo ceeg say kilifa tànn bis bi mu nekk bisu daje pour waxtaane waxtaane lu jëm ci wàccaay ndax nañu ko def joo gis nañu ko waxtaane moo koy jiitu ñu jàpp bis bi pour waxtaane question yi nga xamante ni mooy mën a daje pour organisation wu mawlidul nabi sallallahu alayhi wa sallam mën a ne yonent bi ku ne xam na ni mooy exemple bi nu yàlla joxeñ exemple lu mbaax exemple lu mat exemple lu melo wu rafet exemple lu sellte exemple lu bépp njub exemple bépp rafet rafet exemple lu mën a defar njaboot ba mu mel na yàlla bëgge personnage bu nit mel yonent bi rekk moo ko dajale ci àdduna bi Maodo sunu maam Seydi Hadj taamu di ko célébrer célébrer wu ko ngir jëmm ji waaye daf koy célébrer ngir excellence su dund bi mu indil doomu aadama nga xamante ci lépp moom yonent bi moo ci le meilleur exemple xalifa bi wax ni kon joxe na ndigal pour nu defe ko na ko boroom bëgge woon mu àndandoo ceeg ay rakkam ay rakkam àndandoo ceeg xadara malikiya àndandoo ceeg mbokki taalibe yi woo leen ci ñu bàyyi ko xel toppatoo ko moo indi daje bi nu njëkk ko def pour waxtaane lu jëm ci lu saytu organisation bii nga xamante ni mooy tax mu rafet yéwén mel na mu ko bëggee loolu nag sëriñ Habib indi limu ci indi yëpp ci ay ndigal nu àndandoo ko ak moom sëriñ Habib doomam waroon na teew waaye dafa am ngànt mu wax ni kon nañu wax taalibe yi ni ren bëgg na ku ne waajal ko te waajal ko ndax ñaari at lañu dund ngir Covid bi fi am mu bëgg nag bii. méngoo ak centenaire demu Seydil Hadj Malick mu nekk bés boo xamante ni ku ne dana ko saytu dana ko waajal dana ko taxawu dana def lu ko ci war ñëw fekke si ko def lu leen ci war na mu ko bëggee woon ak ñi mu ko bokkal ñëpp ko defee loolu nag daje bi nu daje wane na li nu ci li mu ci bëgg yëpp wax nañ ko comité d'organisation COSCAS El Hadji Mame Ousmane ak mbooleem ñi mu ko séqal préfet ñu feeñalal la cantu comité bi waaye cantu xalifa bi ndax kilifa mën na ni bëgg naa nangam waaye njabootay fexe la mu bëgg mu am yéen ñëpp considéré wu ngeen ni doomu Seydi Hadj ngeen bokk ci mbiram bokk ci liggéeyam rawatina réew mi togg leen jëf pour ngeen taxawu njaboot gi taxawu boobu lu toll ci ñaari million ci ay jëmm yuy déplacé wu fu ne ci senegal fu ne ci adduna bi fu ne ci Afrique di ñëw di fekke ci gàmmu Tiwaawan yaakaar naa ni mérité na ñu jox ko attention bu ko ëpp tabaarakallahu moom ngeen def àndandoo kook nun waxtaanee lépp loo xamante ni jëm na ci lu koy rafetal mu jaadu bu nu demee ba jeexal nu feeñal cantu xalifa bi gannaaw bi nu ko ñaanalee yàlla gën ko dolli wér gën ko sampal ndam nu dugg ci biir ndamam moom a ki ay rakkam fa tabaarakallaahu may nu wér ak fekke ak tal ba ni mu bëggee mawlid bii di ñëw nu mën ko ko defalee ni mu ko bëggee tabaarakallaahu door ngeen yàlla na leen yàlla gën a dolli kattan te jàppale leen waaye jàppale itam boroom réew mi nga xamante ni moo leen jox ndigal rawatina ministère de l'intérieur nga xamante ni moo jiite communauté yi ñaanal leen yàlla yal na leen yàlla gën a dolli ndam te sampal leen li nu bëgg ci réew mi bunt yu ubbeeku jëm ci e, seen ndam yàlla mottali ko nun ñëpp di ay sénégalais duggaale ci biir yàlla na nu yàlla boole defal jàmm lii rek laa ne woon mënul ñàkk ñu feeñal ko muy kàddu xalifa bi kàddu ay rakkam kàddu njabootu El Hadj Malick kàddu muqaddam yi kàddu imaam yi imma yi waaye kàddu Sénégal yépp nga xamante ni yonent bi moo leen boole tënk te moom mooy ki nga xamante ni moo ko fi nekkal kon nu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla mottalil te gungee nu ndamam ba nu yegg ci ak jàmm wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu préfet ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di ko teg ci nuyoo Serigne Moustapha di nuyu monsieur le maire di nuyu chef de service yi nga xam ne ñoo nekk fii yëpp di nuyu sunu président Mame Ousmane ak mboolem ñu mu seqal koskaas man ak suma rakk sama jarbaat sama xarit sëriñ Moustapha ànd ak suñu jaam bu baax bii di sëriñ Babacar Cissé ni mu ko waxee moom sëriñ Moustapha ñaan rek a des ndax kàddoom mooy sunu kàddu mooy kàddu xalifa bi liñ ci dolli rek mooy sant la gërëm la ci ni nga xam ni noonu nga dirigé tey waxtaan bi ak liggéey bi depuis dix heures ba léegi yaa ngi toog ba sept kon jar na ñu ni la jëf teg ko ci jërëjëfu sëriñ Moustapha sant it gouverneur moom nga fi toogal waaye sant it sunu frère sunu xarit di la ministre de l'intérieur nga xam ni Tiwaawoon ak Seydil Hadji Malick maamam bàyyiwu ci dara sant it ki nga xam ni moo leen bokk yëliif nga xam ni Serigne Babacar Mansour baayam la muy le président de la République yóbbante la cant ak ngërëm ci moom di wax nag bokk yi nga xam ni ñu ngi war a ñëw dañ leen di dénk rek loolu rek la ñu ni woon nañ ko ci dolli mooy ren gàmm gi dafa nekk gàmm bu spécial dañoo jóge ci Covid Covid bi nag jeexagul completement nañ ko gën a bàyyi xel gel yi nga xam ni ñu ngi ko daan jëfandikoo parce que Covid bi docteur yi dañu wax ni mën ngeen def lu ngeen bëgg a def parce que dañuy dund ak moom parce que Covid bi moo euh, docteur yi ñoo toxoon xalifa bi tëj bi ko docteur yi maye itam pour ñu ubbi ca ziar général bi. ba ci ashura bi ba ci lii ci lay soog a wax ni kon nag nañu gàmm waaye nag gàmm gi nañ ko teg ci yoon ñaareelu point bi itam mu ñuy ñaan ñi nga xam ni ñoo fas yéene ñëw ci gàmm gi ñu ànd ak discipline ak yar parce que ku ne xam na ni taalibi Tiwaawan naka jekk ci discipline lañ ko mas a xamee ñu moytu itam transporteur yi nga xam ne ñi ngi indi nit ñi ak daayira yi nga xam ne ñi ngi war a ñëw di gàmmu si yanu ba ëppal li nga war a yanu nañ ko moytu boole ceeg di lang di yéeg ci kaw di toog ci cat yooyu yëpp bu ci nekk ñi ngi ñaan rek ñi nga xam ne ñi ngi war a ñëw ñu fexe ba sàmmanteeg xaq yooyu kon ñi ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla indi ñëpp indi leen ci jàmm delloowaat leen ci jàmm yàlla bu mu nekk suñu mujj gàmm ñaanal yàlla xalifa bi sëriñ Babacar Mansour yàlla may ko wér guddal fanam defal ko ay rakkam Seydi xaaj Malick sëñ Babacar Abdoul Aziz sëriñ Mansour ak mboolem njabootu moom Seydi xaaj Malick yëpp ñaanal jullitu yàlla yëpp ba ci sunu bokk yi nga xam ni tey ña nga fële ca Touba te tey jii ba ñoo ñëw fii ci Touba la ñuy jëkkee ñuy ñaan ñëpp dem ci jàmm ca Touba ba jóge fa ci jàmm ñëw Tiwaawoon ci jàmm yàlla defal ñëpp jàmm wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu jàng fatiha ak salaatul fatiha tëjee ko